fay la. ñu gis ñi ngi teel a ñëw fii ah, ndax pikin ku la xam-xam ni da nga bëgg pikin ñooy laaj ah, yéen lii lan la leen jaral tey ba yéen ñëpp ngeen teel waaw lii boo gisee rek woo nañu mbër yépp boo ñaa woote fi tey ma ànd seeg suma rakk suma xarit Amar Sène hmm, mbër yépp a ngi fi lii rek soo gisee rafet na Papa soow ah Franc Goro Sock Tafa mbër waaw mbër yëpp daje nañ ak lu làmb waaw ñëpp daje nañ fi daal. léegi ah, gars yi doon gis sa problème ah, ci Lac de ñu naan Lac de Guiers xaw ma dafa ñëw jaxase Pikine affaire yooyu noonu léegi yow yow la nga mun a wax ci loolu noonu. waaw li may wax ci loolu Lac de taxul may génn euh, affaire sëriñ taxul may génn si seen euh, conférence de presse boobu loolu laa bëgg leeral tey mooy ne affaire sëriñ bi ñu waxante taxul Pape Sarr génn wax. seen conférence de presse boobu waxu sëriñ lañ fa wax waxu yaan baas man sëriñ taxul may wax borom dëj bi mun na doyal jooyal boppam a muy ëmmal seen su waxanteeg la dëgër affaire sëriñ ñoom ñaar la mais li génnee Pape Sarr mooy ni ëmmal seen boo yee la bëgg waaye bëggoo leen man loolu moom a génnee waxu sëriñ concerné wu ma dégg nga loolu moo ma génnee ah. waaw. waaw ah, kii léegi après ñu gis ne daa amaat benn waaju kii ah, bu génn la tëkku naan Pape Sarr xam nga moom ñoo ko daa ko wax ñun géejawaay laa dëkk léegi yow kooku loo koy tontu. non kooku amuma lu ma koy tontu kooku tontu naa ko ba pare mooy mooy dof kooku dañoo bokk sëriñ muy sëñ galas kooku bi ma Birane Ndour joxee xaru 500000 ci place Lamine Samba moo ma jaay buum kon kooku bu gën a am déwén bu may ñëwaat jënd foofu xar jëndal ko xaru fanweeri junni. kooku kooku bu bëggee nit ñi xam ko Sénégal xam ko mu mel ni Pape Sarr comme loolu mënutu ko def géejawaay na dem viole ji. mu dem violé ji mu dem violé ji def lu ne weng xool benn mineur violé ko pour nit ñi xam ko mais du man maay tax ñu xam ko. da nga jàpp ne yow ci yow la bëggee bës. du ko am bokkuma ak sax moom. muy doomu Pikine may doomu pigin suma doomu nday la suma frère la comprendre ga moom mooy ambassadeur non à la violence moom lii bu ko wootee moom moo ko war a woote. su ko defee moom moo ko war a def mais yaakaar naa ni itam bu ko defee sox ak gàmmu gay la ko defal comprendre nga parce que ñun ñoo préparé ba ñu suba la ñuy bëre suñu borom dogal lii mu dogal kon tey bu defee lii ñun la ko defal dañ ciy sant rek di ñaan bu dee li gën la yàlla na ko suñu borom jeexal ñu jëflante mu jeex bu dee du lu gën nag yàlla bu mu jeex ndax nit ki booy ñaan da ngay ñaan li gën ci yow waaw da ngay sàkku ngëneel quoi waaw maa ngi ko ci félicité bu baax. waaw sama tey li suñu rakk ñaa def. defe na ko monde lamb yëpp waaw di am contentement bu baax parce que man dama yàgg bëgg lu mel nii mbër yi di dajaloo même bu nekkul lii nii sax buñ bëree ba lamb ji jeex war nañ benn conférence presse boo xam ne ñu mbër yëpp ay dajaloo baalante ak xam ne tamit ñu ñooy te ndam li génnu Sénégal lii dafay rafet dama koy rafetlu même bu même bu lamb jeexee ñu am benn benn bis boo xam ne champion yëpp ay dajee joxante loxo baalante ak euh, waxtaan tamit aussi xool li ne suñ kanam parce que tamit boo gisee des fois presse ñu di yomb mooy que dafa ñu benn say. Mhm. waaw te waaw bu ñu defee benn say rek. vraiment gis naa ne dinañu dimbal day dimbal suñuy rakk yi ne ci ginnaaw. et puis dinañ nekk tamit exemple boo xam ne tamit aussi ñeneen nañ ci mën a xool ren waa parce que man dama jàpp ni euh, réussir nañ ci parce wax dëgg yàqul xaritoo waaw te li ma dégg yëpp ñu wax wax bu toog la du dëgg. waaw dama gis ni ñàkk réussir moom mu ngi ci am quoi. dëgg la lii rek dafa rafet quoi. waay ku ci nekk tey am nga am nga loo yëg. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàqul xaritoo mm-hmm. waaw bu ko defee bu ñu ko def lépp mm-hmm. dëgg moom. dëgg rek moom waaw dëgg la quoi. wallaay dëgg la mais lan dëgg loo koy conseillé nag. ndax dégg naa non non du ma ci wax suma rakk la suma frère la loolu moo amoon lu ma ci wax nañ ci sa pense que jarul nekk di wax parce que ay gentleman lañ quoi. waaw loolu la quoi. jërëjëf ok jàmm. mu am initiative bu rafet woo ñu ku nekk sa numéro mu woo la boppam wax la initiative bi laa am dama bëgg ngeen ñëw ñu bokk ko def looloo waral suñu teewaay fi looloo tax ngeen teew fii nii yow ah, si relation ak Boy Niang lan la ba tey nga teew am ñu ay relation liggéey moo ñu boole nii loo xamante ne lu laal ñëpp la moo ñu boole te lu laal ñëpp nag ñëpp ñoo suñu jàpp mu mën a sotti gis tamit sa combat ak Siteu foo ci tool waaw ah, ñun mbas mi la ñuy xeex fu mu nekk nii dafa mbas mi jógee ba pare rek ñu doog wax waxu combat quoi. Sall la fi tax a teew moo ma fi tax a teew booy Niang moo woote làmb wuy su ko mu woote lu am solo woote ngir ñu waxtaan xool naka la ñuy mën a def ba mbëri delluwaat ci arène ba bëri ji ak contexte bi ñu nekk muy loo xamante ne nii ñu ngi koy saluer bu baax a baax a baax di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm ak champion yi mu ci àndal yëpp. le monde de la lutte ñëw nañu wuy si ko toutes les écuries sont représentées macha allah muy loo xamante ne ni lu rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm. waaw loolu dama koy rafetlu rek parce que tey Boy Niang li mu woote du intérêt intérêt làmb yëpp la kon tey képp kuy champion képp kuy mbër da ngaa war a ñëw wuy ci ci li mu woote parce que tey ñoo bokk entreprise bi muy làmb lépp lu luñ ci am suñu kër lañ koy yóbbu. kon tey bu da amee problème ñun ko war a jóg boole suñu doole ngir problème boobu am solution. ñu gis depuis Covid bi ba léegi combat amul léegi ñu laaj yéen mbër yi comme nga ay soutien de famille ngeen nan ngeen koy dundee. waa métti rek parce que tey ñun amuñu beneen métier ñun làmb kese lañ am. moo tax tey boo gisee ñu jóg boo xoolee man maa njëkk a def vidéo wax ci làmb toog amuñu métier bu dul làmb ñu tëjal ñu ko pendant un an et quelque te te ñi ñu ko tëjal ñoom ñu ngi xëy di dem seen i bureau di liggéey xam nga ku ci nekk boo xëyee joxe sa dépense nga nekk xale am doole sa waajur xëy soxla benn somme bi mënoo ko dafa metti ñuy sàkku war rek ñu tegal ñu ay mesures de ñu respecté ko te bëre. ni moo gisee di ko rafet rek. ndax euh, boo Niang suñu fils la wax naa ko moom victime la jël avance di soutien de famille ba léegi xamul kañ lay bëree fu muy bëree loolu moo waral cri de cœur boobu mu woote dañ jël suñu àq ndax ndax bugguñu di marche ndax mbëri buñ marché mën na juru leneen mais sañ na nag laaj suñu àq mooy nañ ubbi saison bi mbër yi bëre man loolu laa gëm tañ respecté mesure barrière yi. yàlla yoo xam ne dee gën a gëm yàlla kon nag bu dee ñëwee nañ dee ñun ñëpp bu tudd ñëwee na tudd ñun ñëpp ñuy neexal état aussi yaa ngi dégg président ko teg na ubbi làmb yi ñu bëri moom si ko xaar waaw moom promoteur bu dee sa xaalis perte na billaahi non loolu du caaj la mais loolu du caaj loolu du caaj la ma xam nga tey am na Franc pour le faire Gora Sow Papa Sow boo ñaa pël bi xam mais ñu ne di ñaari mbir ay wax man na ñoo ñuy gëm gëm yooyu chinois yooyu loolu yow ko billaahi ñuy samp ñoom la di gërëm yow dëgg yàlla mais li moom fenwul ah ñu ak terrain bi incha allah président jàppale boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu a am sax ci àdduna mooy ñu ngi judd ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi sa empreinte kon na la waay ñun suñu avenir moom yéen sa loxo jox nañ la ko ñun jox nañ la suñu lépp parce alxuraan man xol waxee man soxlawuma dara mais li may gis bu ma ko gis président dimbali ñu bu dee góor nga góor góor góor nga yow dimbali ñu. nan ubbi ñu ñu bëre feebar feebar rek. am na feebar na ci hôpital yi day ràññi ñi chaque jour te du coronavirus chaque jour gars yi di génn ay néew ci hôpital yi mais coronavirus corona ba kañ ba nga yàqal na ñëpp seen liggéey loolu naay sul kon nag ñun bëri ñu ñaan président ak gouvernement mu jàppal ubbi làmb ji mais affaire kilo xaw lan wax loolu mooy lan loolu dañ ne bu ñu ko jéem man la nekk xam mais ban promoteur moo def di di jox xaalis mbër ay millions di naan ay huit kilo man man ah, ah, ku ne Europe pourquoi. amul condition amul dara nañ ñu bàyyi ñu yeggali suñu métier nekk ci lu ñu war a nekk parce que tey buñ toogee nii mu continuer nii mun nañu jural leneen parce que tey ay responsabilité lañ mënuñoo toog ñu yaakaar ñu di ñu xaar onze mois ñu toog di préparer benn combat presque trois ans mënoo bëre métti na quoi. waaw mais kontaan na li tax ñuy kontaan mooy moom suñu rakk la bokk ci famille bi mais itam acteur làmb la. su posé jalon bu mel nii dañ koy apprécier li tax ñu koy apprécier mooy xale la te dañ ne xale bu loxoom si dee mu mën a bokk ak ay magam te làmb dafa soxla lii dama wax ne làmb à chaque fois dañu war a toog def ay séminaire def ay atelier di waxtaan ci làmb nan lañ mën a def ba progresser ko yan secteur moo baaxul yan secteur lañ war a jubanti pour mu dem. waaw ñu gis ne depuis Covid bi ba léegi gars yi kenn bëreewul ñu ne laa yéen promoteur lan lay def ci parce que ay suy dafa. non loo xamante ni bii ñëpp la impacté. dafa xam nga bu ñu tollee ci lu toll ni coronavirus damay wax ne le corona est venu pour rééduquer le monde rééduquer le monde mooy jëllowaat nit ñi ci li ñu nekkoon indiwaat leen ci leneen ku ne xam ne làmb ñi ngi dëgmal un an boo xamante ne bii kenn bëriwul ci mbër yoo xam ne làmb lañ yaakaar mbër yoo xam ne làmb lañ am pour exercer kon dafay metti